internationale ànd ak ay partenaire Salim Dieda World Clinique Marie ak Al Madina International Travel ñoo leen di may seen émission wérgu yaram les mercredis de docteur. asalaamaaleykum euh, mbokku seen info ñu ngi dellusiwaat euh, tey euh, dans le cadre des mercredis du docteur Konaté. donc tey encore pour ñu waxtaan benn euh, sujet d'actualité euh, bare na ñoo xam ne dañ ma ci euh, interpellé loolu ma tax ma ne tey dam koy consacré donc suñu émission bi à ça donc tey dañuy wax waxu prostate problème bu prostate suñu waxee prostate di ngeen jàpp ne que góor yi lay waxal. problème prostate bare na hmm? par exemple je donne benn exemple simple ah ñuy wax euh, hypertrophie bénigne de la prostate HBP euh, pour ñuy wax ci euh, disons à partir de 40 ans à partir de 40 ans prostate mooy benn glande boo xam ne dafa nekk suñu suuf su suuf euh, vessie bi te glande boobu dafay euh, euh, participer ci formation wu lu ñuy wax sperme donc moom mooy tax góor yi ñu mun a jur donc euh, prostate donc def si euh, participer dafa am liquide donc boo xam ne daf koy sécréter donc euh, bu boobaa ah loolu moom mooy permettre donc nit ku yu góor góor yi ñuy pouvoir am doom donc prostate boobu comme ni mu leen ko waxee mi ngi su suuf vessie bi benn glande bu ndaw la mi ngi day comme guro donc euh, dafay màgg à partir donc euh, de quarante ans dafay màgg te su màggee am na foo xam ne su fa yeggee dafay xaw a ëpp tuuti loolu dañuy wax euh, hypertrophie loolu wuute nag infection yi nga xam ne dafay am ci prostate ci yenn prostate yi wuute na ak cancer Euh, dès l'entame dès si euh, début bi nii dama leen di damay dalal seen xel ah, pour wax leen ne li nga xam ne moom mooy euh, hypertrophie bénigne de la prostate ah moom mooy euh, prostate bi dafay màgg màgget euh, loolu. du jur jamais cancer parce que ñu bëree laaj nañ ma ko est-ce que euh, euh, su ñu amee problème mu prostate euh, pour am problème mu saw yi ak yu demee noonu mun na dem ba jur cancer dalal leen seen xelan ah. cancer beneen problème la si toujours si prostate bi cellules yi dañuy dof ñu multiplier wu donc après joxe lu ñuy wax localisation secondaire day dem tafu feneen donc euh, loolu moo tax ñuy wax waxu cancer euh, maintenant li nga xam ne moom moo ci gën a bare wax naa leen ko moom mooy hypertrophie bénigne de la prostate c'est parce que euh, prostate ni ngeen ni jëmee mag seen prostate tamit day jëm mag naka nañuy xamee que am nañu problème mu prostate Euh, li si gën a bare si tour ndox bi nañ koy euh, seetlu si tour ndox bi donc euh, soit sooy tour ndox tuur ndox bi dafay ñàkk doole donc xam nga sooy tour ndox normalement dafa war a dem directement def benn jet maintenant soo demee ba nga xam ne que ne par exemple ngay tour ndox nga am ay cinquante ans ngay tour ndox ndox bi mu yéeg nii mu mel ni day daanuwaat sa tànk en ce moment là war nga seetaat sa bopp war nga ñëw ñu euh, càmbar la ñëw ñu xool def loola lu ñuy wax ay euh, genre ay échographie wala def loola yenn analyse pour xool donc yow euh, sa prostate boobu donc fan la tollu ñàkk doole boobu tuur ndox boobu mun na dem ba affaire bi dafay tëju donc euh, ma ñu bëri par exemple dañ leen di recevoir euh, dañuy dem ba nga xam ne que ne dañuy tëju dootuñu mën a tuur benn toq ndox bu boobaa te loolu dafa euh, dafa metti ah loolu dafa metti bu boobaa donc nit ñi suñu ñëwee ñu seet leen càmbar ko defloo leen benn échographie tegal la sonde def ay analyse ay analyse deret ay analyse Euh, sow yi euh, bu boobaa donc euh, ñu pose donc diagnostic bi et suñu poser diagnostic bi en ce moment là bon dañ lay proposer donc benn traitement mais balaa traitement bi ah ñu wax tuuti ci complications yi parce que euh, prostate donc su tëjuwee par exemple fi nga xam ne day tëju. Euh, fi nga xam ne sow bi foofu lay dajaloo lu ñuy wax vessie loolu dafay nekk ce qu'on benn millier de culture donc ñi nga xam ne dañu amee prostate ñu ci gën a bare euh, dañuy euh, tuur ndox lu bare te loolu mun na dem compliqué wu jox la ay infection donc chaque fois suñ ko fajee rek affaire bi day dellusiwaat joxaat la donc ay infection donc ay ay infection donc à répétition mun na dem nag euh, ba tëju carrément comme ni mu leen ko waxee loolu tamit benn la ci complication yi euh, mun na dem donc ba tëju carrément jox la euh, ce qu'on appelle une rétention aiguë donc d'urine loo xam ne su tëjuwee donc nit ki dina am ay metit yu tar mais comme ni mu leen ko waxee ci début émission bi. Euh, prostate du problème mu hypertrophie prostatique donc du transformé wu jamais en cancer donc euh, côté boobu na sa xel euh, dalal leen ci donc seen xel maintenant nit ki su ñëwee mu am problème mu prostate en ce moment la il faut ñu proposer ko donc benn faj. am na ay garab ay doom yoo xam ne mën nañ leen ko proposer bon déjà bu fekkee am na infection parce que ñi ci gën a bare dañuy ñëw ci benn soit tableau de complication soit infection yi la wala rétention yi bu fekkee am na infection dañ lay defal benn antibiotique bu fekkee rétention la ñu tegal la benn sonde pour mun la soulager en attendant ñuy euh, choisir yow ban méthode nañ lay euh, defaral donc pour euh, pour ce traitement am na ay garab ay doom yu ñuy wax par exemple ay alpha bloquant yoo xam ne dañ koy jox alpha bloquant bi dafay xaw a wàññi prostate bi tuuti et puis soulager vessie bi en ce moment là. Euh, nit ki donc dina xaw a feex tuuti dina commencé waat euh, tuur ndox tour ndox bu xaw a normal te bu boobaa en ce moment nit ki su demee ba nga xam ne dallu na ak yooyu ñu door a xool donc bi nga xam ne méthode bi nga xam ne donc moom moo moom moo gën ci moom donc euh, pour pour pour faj bi donc wax naa waxu traitement. Euh, antibiotique euh, donc alpha bloquant pour prostate bi mais traitement bi mun na nekk tamit un traitement chirurgical donc euh, mun nañu dem ba nga xam ne ne donc dañuy opérer nit ki pour génnee soit benn partie prostate bi wala génnee prostate bi yëpp donc pour boobaa pour mun a donc au maximum soulager nit ki delloowaat ko si joxaat ko donc sa santé. donc euh, essentiellement donc euh, essentiellement donc tey loolu la ñu amoon euh, pour andil leen mbokk auditeur u seen info du ma terminer <coughs> émission bi sans remercier sama technicien yi caméraman bi abdelle euh, mais tey moom dama bugg particulièrement donc remercier euh, sama maître yi ah, mais les maîtres euh, qui moo enseigné ñi nga xam ne ñoom ñoo ma jàngal première année donc ba huitième année ñoom ñëpp maa ngi leen di remercier Euh, bon lim bi mënuma nekk di leen liim ñoom ñëpp parce que macha allah euh, mais am na koo xam ne moom vraiment il faut ma tudd ko parce que dafa nekk euh, nit ku sës si man koo xam ne vraiment man daf ma marqué si sama si sama formation donc je veux parler donc du professeur Mourtala Ka Euh, vraiment, professeur Mourtalaka, merci, merci, merci encore. Euh, damay profiter également pour euh, remercier sama camarade de euh, promotion yi waa promo promotion 2001 euh, et particulièrement am na si koo xam ne tamit mënuma ko bañ a tudd euh, docteur euh, Eusebio Eusebio Andrade vraiment un ami un frère chaque jour daf may encourager di ma jox ay tegtal di ma naan li nga def nii baax na li il faut que nga améliorer ko ainsi de suite Eusebio vraiment Eusebio merci euh, parce que il participe donc à l'émission ah il participe à l'émission euh, mënuma tamit ñàkk a tudd Sila Thiam également mon ami mon frère Donc, on a partagé pas mal de choses ensemble. Docteur Silacham, vraiment merci. Et je vous donne Marlène Dior, donc, daje Dajé, la semaine prochaine. Merci beaucoup. national ànd ak ay partenaire am Salim Dieda World Trading Clinique Marie ak Al Madina International Travel ñoo leen di may seen émission wér de docteur